Moustapha bu sëñ Abdou mm-hmm. kii mooy sama sëriñ mm-hmm. bi ma waree jël wird kii laa seeti mu jox ma salaatul fatiha ma di ko wird mm-hmm. kii mooy sama sëriñ su ma teree dara dama koy bàyyi bu fekkee xormal naa ko te sëñ Abdou Aziz Al Amin moo daan wax ni su ma amul woon kilifa man Abdou Aziz Al Amin jaral na ma wut bant samp ko ci digg kër gi def ko muy sama kilifa sama sëriñ ñi ma yàlla booleel ci kër Seydil Hadj Malick samay kilifa lañ ma nawloo leen def leen ñuy samay sëriñ xam nga sëriñ Moustapha mii du ko jug ba koo gis gis ko yàlla moo ko cëral jox ko cër cër bi mu ko jox cofeel gi gi mu am ci man yëg-yëg bi mu am ci man lim ma may ci boppam recevoir ma biir këram ci loo xam ne nit dund na ba am téeméeri at ci réew mi amoo ko li ma yàlla defal moom laay muñee yenn saa yi li ma nit ñi di def moo tax du ñëpp laay tontu. ah mais bisu yàgg nga bisu yàgg ngaa dégg ma ni leen man du ma tontu non non non bisu man bisu man du ma tontu ku siiwul ah. Ah. billaahi wal kitaab yi daray àddina jàmm yow doo maye buzz boo siiwul duma la tontu mm-hmm. même boo siiwee te sa siiw demeewul noonu maanaam ay quelques personnes ñoo la xam mm-hmm. duma la tontu boo doon wax ci man di analyser di saaga di wax ba gannaaw suba duma la tontu am na ñoo xam dañ may bàkkee Modou Fall daa man a tontu non non. mais ñoom du ma tontu dañ naan Modou Fall day daa ko sant. non non mhm. xam nga kan laay tontu biisu. Mhm. koo xam ne yëg naa ni sénégalais yëpp xam nañ la. ak lu mën a xew nit ñi xam nañ la. Mhm. du ma nangu. te wax day am impact. du ma nangu nga may wax loo xam ni. tooñu ma la parce que nag big taf man du ma tooñ. maa ngi lay giñal ci sëriñ Serigne kër si mi ma yaakaar man du ma tooñ. yow waxoo fi yow tooñ weesuwul nga ñëw fekk sama zaar gii di laajte xar tabaski ak di laajte nga naan ko sa bu ko may xaru tabaski lan nga ci jublu oustaz bi ngay wax loolu. bisu maa ngi ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy. mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. yal na yàlla nga fi yàgg guddal fanam te may ko wér. te mu dund at yu baree baree bari. ñu ndokkeel ko nag Sénégal gépp privilège la li nga am nii yëpp man li ma yàlla defal man xam naa ko. cir bi ma kilifa diine yi jox. man xam naa ko samay sëriñ yi ma yàlla booleel ci tarixa bi fiñ ma teg man xam naa ko gis nga big taf bu fekkee dangaa bokk ak ay nit kër gi te respecté wuñ la te El Hadj mi moom kër gi moom xam na yaay kan waratoo yëg ñi la ñàkk respecté ci kër gi man fi ma bokk muy tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif kër Seydil Hadji Malick laa séddool ci biir kër Seydil Hadji Malick Serigne Babacar Sy ci njabootu Serigne Babacar si laa bokk. Serigne Babacar si Mansour mii mooy sama xalifa. ñaanuma yàlla man doon leneen. ci àddina ci sama dund. lu dul taalibe Cheikh. dama ñaan yàlla dund ci tariixa bi dee ci tariixa bi. parce que man li ma jàppee sama bopp man Modou Fall. mooy man élément Seydil Hadj malik laa. man lu ma am tey Seydil Hadj malik moo ma ko may. lu ma am tey waxtaane tariqa bi moo ma ko may awma lu dul kër Seydil Xaaji Malick man li ma bëgg ci sama dund di ko ñaan yàlla bis bu nekk nga xam ne bu ma yàlla di may li ma gënal ci li may may mooy doon taalibi cheikh li fekk daal maa ngi yëg ni Seydil Hadji Malick mi ngi ci sama biir xol Serigne Babacar Sy mi ngi ci sama biir xol jàpp naa ni daray àddina naqariw mais est-ce que leen mënoo ci ñooñu bu ñu la waxee dara nga bañ tontu non waa xam nga tontu sax man dama wax sànq ci vol bi ki ma doon waxtaanal ñu dend di waxtaan ma ni ko tontu bi xam nga lu tax mu metti mhm. big taf tontu yombul de mhm. man damay tontu nit par exemple mhm. mais une semaine yoo xam ni man du am jàmm man ci téléphone ndax la nit ñi kilifa guddul gu jinne dalay woo téléphone yenn saa yi nga gis koo xam ne da koy rus jox ko cër bëggoo mu xool ci yow dara wala mu wax ci yow dara mu woo la téléphone woo la waxtaan ak yow bu ma sañoon doo tontu dafa metti te dañ lay tooñ. mais oustaz yow li nga koy dégg bëri te dangay kon ni di tontu itam. billaahi mm-hmm. wallaahi tallaahi. Mm-hmm. su ma daan tontu cent pour cent. Mm-hmm. à part tey. samay tontu cinquante la te du ñëpp laay tontu. maanaam cadre tontu moom big taf mhm. jàppal ne oustaz Modou Fall wàññi na ci lu bare bare bare bare ah, d' accord lan moo tax lan mooy nekk critère bi nit def ba mu jaral nga def taal taal sa téléphone na sa bopp tontu lan mooy lan lan la la nit mën a def ci dayoo bu muy yegg ba ngay def loolu yow waaw léegi big taf dama lay laaj benn question mhm. est que neex na biisu nga toog jékki-jékki koo xam ne tuddoo ko mhm. taasoo ko mosoo wax ba tudd ko ba bi ba avant mu lay tudd li nga jàpp sa digganteeg moom mooy respect ngeen séq tooñ la loolu maanaam yow loolu nga jàpp. Mhm. man tontu yi may am surprise la may dikkee parce que bu doon ki may joteel danoo amoon ñagas-ñagas avant. Mhm. kon du ma bett. mais à chaque fois ñi nga xam ne man xalaatuma problème sama digganteeg ñoom man dérangé wu ma leen ci dara te jàppuma lenn lu ñaaw sama digganteek ñoom ñooñu ngay jékki-jékki rek gis ñu attaqué la léegi nag man boo ma attaqué ma jot ci xool gis ni yow ku siiw nga ci Sénégal Sénégal gépp xam nañ la. dama lay tontu. te doo xool lu tax mu attaqué la. non mais jaru ko parce que. amul du xool lu tax xam nga parfois. ah tey nag yii aw <laughs> waaw tamit nag. non non mais mais Big Taf mm-hmm. man chaque jour ma gis ku ma attaqué ci internet bi pour yow dama koy tontu du ma la tontu parce que xaw ma la. Mm-hmm. xaw ma la yow ci ab site nga nekk rek di chroniquer ñu lay jox ngay wax li xew ci actualité bi. moo mm-hmm. Modou Fall neexuma nangam nangam d'accord amul problème fii. man damay faral di wax ni li yonenti bi amul sayyiduna muhammad amuko ko seydil xaaji malik problème d'accord mais amul sayyiduna muhammad amuko ko seydil xaaji malik amuko serigne babakar Si amuko cheikhul khadim amuko modou Fall munuko am muy ñépp ni la d'accord ok bëgg nañ la man awma munumako am ñi may critiquer damay d' ak ñoom ci seeni i version amul problème. d' accord mais xam nga oustaz mais nag du ñëpp laay tontu. waaw euh, euh, parfois critique yooyu est ce que doo taxaw seetlu ne man kat oustaz Modou Fall lan moo tax man ma nekk fekk sama ay nawle oustaz ñii di wax. may wax ñii di waaraate ñuy waaraat et nag yaa ngi ñoom yaa xam nga nag yow yow parce que doo oustaz TFM yaa ngi say nawle yéen a fa nekk ñun fii deux man fàtte naa sax am nañu ay oustaz <laughs> ndax ndax ndax ndax sax say affaire non dafa nànk rek ma expliqué la bu la. yéen kan la fii ñan ñoo fi fii am na ñaari mousquetaires yoo xam ne ñooñu moom Sénégal dañ leen bërgël man ci li jàpp muy tafsir ak ak imam Serif ñooñu moom ñooñu moom fee lañ leen teg te xam naa ne yow ci loo boobu nga jëm waaye euh, dama dama xamaatuma yeneen oustaz yaa say noonu yi dafa nekk ñoom Pape An Pape moom xam nga lal na pasang ba <laughs> loo wax mu aw la na sa ginnaaw rek ba boo ne ko Allah ba boo ne ko Jean mu ne ah Jean ñu ngi lay nuyu <laughs> wax la kaama la Modou Fall lu loo jik njaak yaay njaak oustaz nga boo xamante ne nit bu bari problème nga nit bu bëgg détail nga nit bu sañ nga ku ragalul dara bu am fit si ngay def waaw oustaz bu am fit nga léegi yow yow yow boo doon catégorie boo doon boo doon natt sa bopp oustaz est-ce que est-ce nga <laughs> est-ce que balaa may ñëw ci protocole ñi lay porter plainte oustaz yi lay wër di la porter plainte naan nga génne waaw doo doo doo yem ci Modou Fall rek bàyyi oustaz bi jox lañ seen seen seen seen titre <laughs> voilà mais bisu man daal xam naa ni sama mission maa ngi ci. ñi may bëgg xamal nit ñi seen diine. ñi may bëgg bëgg nañ ma ba pare. ñi may topp topp nañ ma ba pare. mais Oustaz loolu kenn weddiwu ko ñi lay bëgg ñi ngi lay bëgg ñi lay topp ñi ngi lay gën a bëgg mais Oustaz da nekk nitu actualité boo xamante ne buñ na ay ojo moo fuite tey wala ay vidéo ngeen xaar leen sama bos mu leen bett. <laughs> waaw ah, d'accord bi ci des mooy oustaz weesul nit. buñ nee am na tey. Mhm. ñu ne kii takk na takk suuf mu ne bu leen xaar leen sama bos bu mu leen bett. waaw ah, kay oustaz mën nga nekk ci actualité yëpp nga nekk ci caay wala nga nekk ci. ba pare <laughs> boo ci nekkul caay yaa ngi ci doon zippon. bu dee ñaareel la mbirum ñaareel booy seetee ba ci biir. Mhm. mbiru coowal dooro bi am nga ci point de ah, jot famille Ndiaye moom ñoom ñëpp nga takkal ñaareel. te yow lu tax doo takkal sa bopp yow. foofu ñëpp. te buñ nee lakkal mordisaat nga ne soxna si jógal yëngu man bëgg naa la. jugal wala sa bopp. te bàyyiwoo Aziz ne lakkal mordisaat miis bëgg naa la nga raxal ko ay sax ñu ne dee na waaye kee nga raxal ko Betty kee ñu ne dee ne waaye nga raxal ko kan encore. ah kii bu so dëgg la ñëpp nga raxal raxaloo sa bopp. xam nga Big Taf. oustaz balaa muy tëj ñëpp génn wax nga ne Bercy la. man déet wax Adidas naa la. foofu dafa neexoon ñoo Adidas ku bëggoon gàmmu tey nekk sa kër nekk kër. a ma génnal ci loolu. ñëpp wax nga génn ne leen ber ber nga baal ma ci wax ci wax sax wax maa tey ba pare ne bersi la ñu bëri nag mere la ci loolu. waaw mais xam nga Big Taf. loolu tontu du tontu oustaz Modou Fall moo doon tontu. <laughs> non non non Big Taf. <laughs> yow lan mooy différence Modou Fall oustaz yow. dama laa wax sànq ci sama wax ni la. man li ma ñaan yàlla doon ko ba faatu. mooy taalibe Cheikh. man élément Seydil Hadj Malick laa mhm. yàlla daf ma jox cër boo xam ni ci samay sëriñ mhm. ñoom ñoo ma ko may ci seen bopp mhm. dëkk yépp ci Sénégal Tiwaawan moo ma ci gënal Tiwaawan moo ma ci dàqal Tiwaawan laa gën a bëgg bi may tabax sama deuxième kër Tiwaawan laa ko tabax Tiwaawan laay wër man ba fajar lu ma am ci àddina Tiwaawan moo ma ko gënal uh-huh. Seydil Xaaji Malick mooy sama préféré dama ko bëgg awma ci moom sago uh-huh. yamalewu ma ko ku yàlla bind Alaaji Malick laa gëm uh-huh. big taf man mën naa laa wax yii yépp ba pare di lëndëmal benn image bu yàq Tiwaawan man ko def du ma fekkee fu ñu koy defee li amoon kër Aziz. waaw kay jëm. Mhm. man du ma yàq du ma du ma lëndëmal Tiwaawoon. Mhm. te tuuti naa ci. Mhm. te mënumaa yàq image u Tiwaawoon. te du ma fekke fuñ koy defee. gis nga àddina bu nit bëggee fukk. def juróom-ñeent mu baax. bu ca benn bonee. da am compréhension wu. jël benn bi bon baaxal ko ngir mu dem mottali juróom-ñeent ya mu mat fukk. man taalibi Seydil Hadji Malick laa. Tiwaawoon. doxewu ma fa star doxewu ma fa succès burdu fii lay toog ci raw du Serigne Babacar Sy wéeru toog di burdu man liy seddal sama xol mooy ma yëg ni maa ngi connexion wu ci connecté wu Alaaji Malick taalibi Seydil Hadji Malick la Tiwaawoon lay tiitaru bu yàlla dogalee ñu gàmm fukki fan ñu nekk burdu di dem zawiya Serigne kër si di fa burdoo ba burdu bi jeex gàmmu Tiwaawoon jot Aziz Ndiaye organiser gàmmu biir këram di ko def chaque at. xam nga ñu bari jàpp nañ ni Aziz lii mooy première gàmmam déedéet Aziz gàmm na ay at. amul benn coow bu fa mas a am. wala boog comme coow loo xam ni am na ampleur coow lii. big taf. doomu aadama matul. kenn mënta fexe ba sa lépp parfait. su fekkente ni bi gis nañ ci biir gàmm gi. comportement boo xam ni méngoowul a gàmm Tiwaawan man nit laa. soo ma ko waxee ci teey ak dal wax ma ko ma nangu damay nangu dëgg dama naan la big taf li nga wax dëgg la am na loo xam ne àndul ak image u Tiwaawan bu déwénee danañ ko waajal ba jigéen ña fay toog danañ fexe ñu muuru ba ma ko ay kilifa waxee ci ci ci dal mais ci lool laa leen tontu d'accord nga ni loolu liñ la wax mais nag mille pour cent laa d'accord que folklore bi dafa bari woon non du folklore xam nga luy problème bi biisu mais tamit oustaz est-ce que tey. mais loolu waa xaar oustaz dama am benn point boobu parce que tey est xam nga tamit oustaz ak cant dafay xaw a dafay xaw a nduru tiitaru te euh, wax dëgg yàlla cant weesuwu lu dul ren di bernde togg ay ñam yu neex di ko séddale te doo ci am xeej ak seen jàpp naa ne loolu mooy ak cant ndax noonu lañ ñu ko jàngalee. Mm-hmm. waaye euh, euh, bu fekkee ni que da nga da nga da nga leen dëggalal loolu ñu ne fii dafa am folklore. est-ce que du tay oustaz lolu du indi jiixi jaxa xam nga lutax ma tontu xam nga lutax ma tontu lolu ma leral la ko tay ken waru mer ken waru joy non non xam nga lutax ma leral lolu ma tontu hmm. parce que bima yewoo gis vidéo yi. mer naa mer mo xamni ni ca saasa loolu rek la meuna a tontu. nga meuna am retenu ci daye bi nga toll. non non non mais Bictaf xam nga lan la. Hmm. man munu ma nekk wan pendant 15 jours. Hmm. bayyi sama njabot di def burdu chaque ngone di burdu chaque jour. dama la ni Tiwaawoon lépp lu koy sagal kenn duma ci jiitu munuma nekk Tiwaawoon pendant quinze jours burdu bi tàmbali ma nekk Tiwaawoon guddeeg bëccëg vingt quatre heures sur vingt maa ngi Tiwaawoon di animer ay émission ba guddi gàmmu am jigéen ñu ñëw ci gàmmu gi te muuru wunu te loolu d'accord naa man ci ni àndul ak xaalu gàmmu mm-hmm. mais corrigez ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يلا دا فا واخون ني سوي واخ اك نيت كي ووكو سي دال اك واخ جو نيه واخ جو نوي واخ جو رافيت مو دغلو لا بودي دغ مو نانغو من ريوما داما خي لا لاندمي سيتي سما سيرين بما ماي ويرد موي سيرين مصطفى بو سيرين عبدو مونيما مودو نانغين فخي با بو ديواني لي ام نا باña امات نغين اورغانيزي كو مو جار يون با دون لين غيس لون لين دي كريتيكي مانيكو داكور نا امول بروبليم donc yow lan moo la mettre réellement ba nga tontoon. li ma naqari xam nga lan la. Hmm. Oustaz Modou Fall day gàccal kër El Hadj Malick ñii dañuy fowee diine ji. Hmm. lii du gàmmu ñii dañuy fowee yonent bi ñii ay dañuy jaay ni dañoo am xaalis. Hmm. Ah, ñii di jaay affaire de buzz fii yooyu doxu fi. li ngeen bëgg du fi am. fekk mer mu yàgg la muñ denc bàyyi ba heure boobu ñu bëgg koo génnee man sama maa tey ci ñooñu la jëm. mais est-ce que oustaz tey parce que parce que est-ce que oustaz tey maa nga waroon tontoo non non non est-ce que maa nga waroon mais mais mhm. man ne ci mhm. si woo ma ma. Mhm. ñaari loxo laa leen di jox ni leen si Malik, bal leen ma àq dama ndax rek ormal gisee dama koy ormal. mais oustaz li tax ma nan DJ Big ne oustaz Modou Fall néew ma Modou Fall. néew oustaz Big parce que que yow laa jàpp ne yaa ma war a corriger. waaw mais bis may ma wax la samay sëriñ man. du ñoom naan leen maa tey. muqaddam yu tedd yi nekk Tiwaawoon du ma jàkkaarloog ñoom naan leen maa tey. Mhm. dama leen a xormaal respecté leen jox leen seen cër. te même su ma waawoon woo ma mhm. sëriñ si wooma mhm. ni ma oustaz Modou Fall juum nga ci gàmm gi ni nga doxalee du noonu mhm. sama réponse su boobaa xam nga lan lay doon si Malick maa ngi jéggalu di tuub sukk samay bëti óom man oustaz Modou Fall lan li ma def waruma koo def maa ngi leen ciy jéggalu ndax seen maam rek laa yaakaar Seydil Hadj Malick ñoom buñ ma woowoon loolu laa leen di wax waa communiqué bi mais xam nga ñan laa tontu xam nga ma doon tontu ah. Oustaz Modou Fall day fowee diine ji. Ah. day yàq diine ji. Mm-hmm. li xew kër Aziz Ndiaye mais lii soirée de gala lii lan la man boo may tooñ dama lay kukk dama lay wax lu gën a metti li nga may wax. mais ma ni leen ma leen yéen ñooñu. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen parti yéen waa parti parti bi naan lii. diine de gala la yéen waa parti boobu. yéen la oustaz Modou Fall naan maa tey. mais loolu ça ak waa Tiwaawan. Mm-hmm. ça ak samay kilifa. Mm-hmm. ormal naa samay kilifa respecté naa leen jox naa leen cër. Mm-hmm. te du ma jàkkaarloog ñoom ilaa yow mi diin naan leen maa tey. ñiy wax ni Tiwaawan parce que Tiwaawan laa am. léegi ñiy wax ni Tiwaawan dootoo fa waaraate ne ñooñu ñuy wër di ñooñu di wax. mooy bi ñu gis ci Facebook bi. aw ma Facebook man mais. romb naa. ne dootoo fa duggati sax ba ci waaraate waaw. ñooñu ñan ban ban kàddu lañ am ba wax raf sama njaboot di dëkk Tiwaawan ñooñu benn tontu rek coxeur du bind attestation. waaw. oustaz yow li la ñuy wax di li la ñuy wax sa tontu. mais attestation kan moo koy bind. policier. mas ngaa gis coxeur du bind attestation. déedéet moom kay la bindal. policiers yi ñooy bind attestation yi. Mhm. man ñi may bindal attestation ak di ma wax ni Tiwaawoon dootoo fi wax. Mhm. mooy njabootu Seydil Hadji Malick. mais tey oustaz te ñooñu bu ñu demoon ba nar ma koo bindal ma jéggalu leen te xanaa bu ma leen jéggalu woon ñu jéggal ma. mais sama moroom waaw léegi nag kon kon kon oustaz est-ce que tey jotul taf mhm. sama moroomu taalibe man. koo xam ne taalibe nga comme man. doo ma doo ma wax li may def. oustaz comme man kon yow comme man. doo ma corriger. ne soo juumee non non non mais. oustaz yow kon da rëy. am na oustaz yoo xam ne. Mhm. waaw ah, yow da ngay jum te kenn du la da ngaa jum. non non dee ma déglu sens bi may waxee. waaw am na ustaas yoo xam dañ maa woo téléphone allo. est-ce que yaakaaroo ni gàmm gi bu bu ëllëgee du ngeen ko defee nii ñu muuroo nii. billahi wal kitaab bi boo yeggalee dama naan la nangu naa cent pour cent est-ce que xam nga ni li xew kër Aziz Ndiaye ku ci wax ak man ci dal. Mm-hmm. ma tontu la normal. ma tontu la normal avec respect nangu li nga wax ne la bu déwénee dootul am. mais baatu da ngay fowee diine ji ku ma ko wax ma tontu la la ma la tontu woon loolu laa dul nangu. mais oustaz defe naa ne kuy foo am nga espace Aziz war na am na espace ndax kuy jaay kër yu toll ñu rafetee nii yu jëm ci. petit code bi yëpp salaire yu ni mel. Aziz am na feneen fu muy foowee. Aziz fu dul Tiwaawan wax dëgg yàlla. ku jël nag yu toll noonu jël doomu aadama yu toll noonu. di leen dimbali ci gàmmu <laughs> yàlla bi. toll ay nit yu soxor nag moom fépp yaa ngi jàllale te faaw ñu ñëw ci mu gaaw Aziz Ndiaye sama xarit la nit ku baax la yàlla daf ñu boole ñuy ànd ànd bu rafet mu jàpp ma téye ma te yàlla tax may ànd ak moom àndu yàlla biisu oustaz du Fall lu ne mën nga ko ko waxal ci àddina ba mu des sibooru man xaw ma sibooru hmm. du ma dunguru non loolu sax duñ ci attaqué parce que a loolu moom xoolal man loolu du question bu ñuy lay wax hmm. ma sibooru hmm. duma dunguru mhm. Aziz mën na ma ëpp teraanga mhm. mais ëpp ma jom ëpp ma fulla mhm. ëpp ma fayda mais yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne kenn la ci man kenn la ci man Aziz Ndiaye kenn la ci Oustaz du Fall sama xarit la sama wéttal la sama ndoo la ku ma jàppale la ci lu baree bare baree bari ci sama vie ku ne ñun ñaar côté bi nga mën a jàppalee sa morom yaa ngi ciy jàppale sa morom moo ma njëkk a wan yonent bi moo tax mënumaa def lu ma naqari dama koy faral di wax ni boo ma tooñoon téeméeri tooñ ma bàll la téeméer yépp parce que bi may waxtaanee yonent bi te mosumaa dem Médine yaa ma fa yóbbu bi gàmmu yëpp see dafa génnee xaalis bu baree bari quatre heures du matin lañ yeewu man ak moom ak ñi muy àndal dem Daara Jolof daw ay kilomètres fa la ñu yendu mu jënd ay nag chargé ci ay camion am ñëw chargé ay ceebam ñëw Tiwaawoon bari na ñoo xam ne bu seen gàmmu neexee yàlla ak moom la muy taalibe bëgg Alaaji Malick bëgg kër Alaaji Malick mhm. bi ñuy laajal jumaay Tiwaawoon moo woote TFM toog woo ay xaritam mhm. avant ñuy def émission ba ñoo ànd ci otoom ku ne la woo alu sa waay damay waa damay laajal jumaa ji tey duggal na nga maye nàngam nga ne yaa ah, asi loolu da daa bari na mu ne non non sa waay xam naa la jàpp ci rek joxeel nàngam fexe ba dajale milliard ci benn guddi mook jullit ñi ko ci jàppale ñépp mhm. keroog bi muy laaj avant ñuy départ di dem TFM ci oto bi. Mhm. man yëkkati naa un million jox ko ni ko balaa kenn joxe maa ngi njëkk a joxe. Mhm. ci jumaay Tiwaawan. Mhm. kii ni mu bëggee Seydil Hadji Malick bëggee ko tariixa bi man daf may yéem. ak li ko kër El jaral. su juumee nañ ko gàggante rek ni ko Aziz Ndiaye sa kër la fa amoon d'accorduñ ci nangam ak nangam Aziz kuy dégg ay wax la kuy nangu la. day nangu parce que doomu aadama matul. dama bëgg nga xam ne big taf. man su ma juumee. damay nangu accepter sama erreur. Oustaz Aziz Ndiaye it noonu la mel. la fa am ñu bari nee nañ rafetlu wuñ ko. mais Tiwaawoon mënoo organiser guddi gu toll ni guddi gàmm. mais mënoo maîtriser ñëpp. dara mën na am rëcc mi ngi mel ni direct rek. dara rëcc ci direct nga bëgg koo rectifier defaraat fekk jàll na. léegi rek affaire bi am na ba pare. Oustaz kaay wax affaire bi am na ba pare. Oustaz am na ñu neexul. ñun ña fay gàmmoo ci kàttanu sunu borom danañ fexe ba bu nu dëkk malaatee gàmm gii di ñëw. waaye oustaz kaay jigéen ña fay nekk danañ sol lu yiw danañ muuru comme ni ko xaalu Tiwaawoon bëggee loolu tege nañ ko à côté. siiw daal léegi nag bu ca leneen amee da ngay foowee diine jéeg dangam euh, dafa am mer moo dencoon mu yàgg bëgg koo indi ñooñu nag ñooñu nag équipe boobu ah. équipe boobu nga xam ni dañuy toog naan la da ngay foowee diine ji dangaa yàpp nit ñi man équipe boobu laay def face kon yow say propos da nga koy feddaliwaat non non non xaaral xaaral oustaz man damaa defe ne ci ñooñu wax loolu déggoo ma de dama la ni man oustaz Modou Fall du ma fowee Tiwaawoon mm. du ma saboote kër Seydil Hadji Malick mm. su ma defoon naka dul noonu biir Tiwaawoon bu ko njabootu alaaji Malick ñaawloo ma raam jéggalu jéggalu leen macha allah man oustaz Modou Fall foofu laa ne waaw d'accord mais nag ki toog ci Facebook bi mbaa toog ci TikTok bi eenal ma een gu yàgg amaana da mere nga ma ca janvier mhm. lok ko ba gàmm nga bëgg koo sotti ci sama kaw damay taxaw jàkkaarloog yow xam nga image yi ñu fiy wane nii defe fi ay soxna yi ci ëpp ak ay seen ay borom kër ñoo fi nekk. ak nit ñu nga xamantene ay nit la ak say am di jàmm. peut-être li indi polémique bi ak wax ji oustad da fay fowé dini ji wala da fay nangam bokk na ci euh lima la wax sank lakal moo ane sama aawa jugal taxaw. wa mais xam nga bisu. limay wax ci ñak jàngu limay wax ci ñak jangu sénégalais yi lakal moo jisaatun anjazat kullal wara du alxuraan. lan lan lañ wax fofu deglu ma wax la du alxuraan. du hadith du hadithul khudsi laka mujizatun ajazat kullal wara way la teg si way la way benn arab moko way yonenti bi say keman lottuloo na mbindeef yëpp loolu lay firi ngandal géeg yëpp loolu la de laka mujizatun ajazat kullal wara du al qur'an manam du lo xam yalla ko wax bu boo firi wala nga ñàkk koo firi wala nga wax ca leneen mais est ce que loolu ñu xamul noonu looloo tax polémique bi bari ak ni nga ko waxee mu daal ba bëgg dee dégg naa ku naan lu toll ni yàlla <laughs> naan la ka mujizaatul waxu yàlla. <laughs> ma ni xoolal kii. mais nag sa sa sama jabar jugal taxaw ñëpp seen la ñoom sama soxna maa ko takk ci farata yàlla ak sunna Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. conférence bu mu ma fekk conférence bu mu ma fekk conférence bu mu ma fekk. su ma neexee ni ko jugal taxaw. sama soxna la. ci ci ci ñu la fay ci seen conférence naa la woo sama conférence nga invité ko toog ko naan ko jugal taxaw. sama soxna ndax du ma ko fekk fi mu toog ne ko toogal may jug taxaw. yaa ngi dégg sama soxna la ku am sa ah. ku am sa soxna présenté ko. bërki démb la président de la république dem Touba ànd ak soxnaam soxnaam nuyu sëñ Muntaxa bërki démb la jógee fii dem Tiwaawan présenté ko xalifa bi sama soxna ànduma ak ñoom ci ay xalifa général gàmm laa am gàmm si na mhm. présenté naa ko ki ma am nëbbuma ko euh, làquma ko bëgg naa ko. Uh-huh. safoo naa ko. faale naa ko yëg naa ko te fu ma fekk bu may waxtaan bu teewee ma ne ko jugal tax. léegi sa ñaareel dafa nekkoon ci gàmm gi. foofu wala. ah pourtant nag boobu laa bëggoon indi est que nekkul tamit daa am da dangaa def ni Aziz def ni Baye ba koo defalee noonu rek da ko jugal taxaw. kooku jarul defal parce que. Hmm. xam na ni jëkkëram day takk ñaareel balaa yàgg. ah balaa yàgg ki sa loru ay deux la def wala trois yooyu. balaa gaynde gaynde gi di ci teg loxo yow yàggul ci maa oustaz waaw nag oustaz nag yàllaa la tax a jóg yàlla ngay waxal dama ne maa ngi yàggoon nañ wala yàgguñu question réponse ta dañoo mës a génn maa ngi yaa ne am nga ay photo am nga ay audio yaa ko wax yu te oustaz am nga ay message yoo xamante ne yi ngay wax ay message deux heures du matin ku amul lu la leer ci loolu doo ko wax ah, mais <laughs> bisu waaw Modou oustaz yaa ngi musuwaar foofu ah musuwaar xam yow xam nga ne. bisu te fii saal bi noonu la seddee. bisu bisu yow xam nga ni xam nga ni man du ma ragal. loolu laa jàpp di mais danga ne sa relation yi yàq der weesuwul loolu. sa relation yi. ay un mois lay am. man kay looloo